dal leen a jàmm ci xibaar yi bi di Sud di wax ne candidat bu ca nekk la nga digga bu ñu la joxee nguurug Sénégal yéenekaay bi di kat yu di xamal ne Maître Madické Niang ma ngay xam ne nag nguurug Sénégal gii bés bu ñu ko joxee lépp loo xam ne jëm na ci wàllu yoon dana fexe ba mu gën a moom boppam mujjee xam le ci yéenekaay ba nguurug Sénégal daal bés bu ñu ko joxee ñii nga xam ne dañoo jiite ay parti ba pare ñu leen di dénk yenn yi ñu koy paaj loolu moom nañu xam ne dina fexe ba jële ko fi bu dee nag Ousmane Sonko moom Sonko Sonko bi ma ko defee nag na mu ko daan defee dugg nguurug Sénégal ba mu saf-saf rawatina nag système bi nga xam ne yàgg na ko vilipaan jàpp ne baaxul yéenekaay bii di Walf Fadjri di ñu xamal koo ne àndi Sall moom nag nee na bis bi ñu ko joxee nguuru Sénégal xaalisu askan bi nga xam ne dañu koy jël di ko aaki moo ko nguufaan loolee dana fexe ba mu jóge fi mën nañ ko jàng ci yéen kaay bi keneen di Idrissa Seck moom ndaamal Kajoor songati njiitu réew ji fi ñu toll nekk ay jafe-jafe dëgg ñu naan Sénégal émergent askan baa ngi bëgg a dee Idrissa Seck moo songee noonu njiitu réew mi di Macky Sall moom Macky Sall yéen kaay bi di la soloy di ñu xamal ne toj na fi nga xam ne nag moo di Louga ndax meeting bi nga xam ne nag moom la doon amal da koo duy ba ko fu nekk ngir ñëw fekk meeting boobu yi nga xam ne Macky Sall mi ngi ko doon ki nga xam ne moo di Moustapha Diop maire Louga jàpp na ca mitin ba joxe ci ak doole di xamal ne képp koo xam ne bëgg ngaa gis jàmbaar dëgg mën ngaa jàpp ci Macky ca ndaje moomee nga xam ne moo amoon ca la prox ndollee dugg ci yi nga xam ne nag moo di yenn ci ay candidat di xam ne ne nguuru Sénégal nekkul jamono ji ci ay kàcc ki tappale lañu koy yore wala sax ci ay réseaux sociaux kàddoom bi daal jàpp ne donte tuddul turam waaye kàddoom bi gannaaw Kébémer Louga dem moomee nag am na njàpp ndala ki nga xam ne moo di sëriñ xaadim loo ne sëriñ xaadim loo gaydel jamono ji jox na loxo ki nga xam ne nag moo di Idrissa Seck ngir gunge ko ci yoon mooy Ousmane Sonko moo doon féey far ñu takkal koy mool waaw yéenikaay bi di ñu xamal ne démb koy jafe-jafe dëgg la Sonko Sonko bi am bis bu leen jëlee Dakar yóbbu leen Kaolack ko lu toll ci fukki waxtu toog nañ ko mënuñoo fexe ba am lu ni mel loole nag yéenikaay ay koppar ngir campagne ko mbaadu mbir ya day waaj a ci wàññiwul teggiwul tànkam mooy lay waat gor Karim ñi koy séntu ci démb daal yëkkati nay kàddu daal di xam ne jongante njiit réew yi nga xam ne moom la ñu dënmal Karim Meïssa Wade bu bokkul ay élection du am ci Sénégal ni ko waxee ci ab vidéo boo xam ne tey danañu ko fësal enquête yéen kaay ñoom ñi enquête ba jot ci vidéo di ñu xamal ne Ablaye Wade kay jëmono ji taxaw temm la def guddi la ko def démb koy la ñëw ci lu koy 24 actu waaw moom mi nga xam ne moo jiite taxaw Touba la mu ca xamle moo di jamono ji bàyyi naa ko la mu nekkee dañ ko cee bàyyi waaw Sadaga fond de yi nga xam ne njiitu mi joxe na ko moom da koo bëgg a akimoo te Serigne Moustapha nee mënatu koo nangu waxtaan waak na mu yaatoog na mu demee ku ci bëgg am lu leer tekki ko ci 24 point com ci